maanaam lu neex comme ni nga wax rek ñun bi ñëw si plateforme réseaux sociaux ñu ñëw bi suñuy compte jël suñu compte man maa bi sama compte euh, téléchargé ñëwuma sax pour ñu xam ma dama ñëw uniquement su may wax dañuy di ma dégg parce que gi moom ëppal solo sax xam ni amaana tey bu ma toogoon ay kilifa yu bari mën nañ ba nga xam kii mooy kan ndax comme ni ma koy defee maam ci yoon mi wax boroom verre yi su ma ñëwee verre verre noir laay sol parce que moment bi amul kenn ku yàlla saako. Euh, ci plateforme TikTok yi dafa de ak président Macky Sall te comme ni may suivre maam Thierno euh, xam na bu baax ni may expliqué mais duñ ko wane duñ ko jëfee li am solo mooy. peuple bi. loo bëgg a wax foofu. waaw yow yaa ci gën a siiw daal ci ñuy defaan mag. non bokk naa si siiwuma ñi gën a siiw. man li ma ci neex mooy lu mu wax rek ne maam Thierno mën na ko seede man. non non dama ni c'est-à-dire man si utuma man utuma siiw. ok loolu da ngay di nga gëm man li may wax. nañ ko dégg moom a ñor parce que boo xoolee tey président Macky Sall parti la yor muy APR Benno Bokk Yaakaar parti la mu am foo bokk mais peuple bi dafa ñoo xam ne bokkuñu ñu ngi seen këyito mhm. mais dañuy déglu dañuy seetaan loo far-far fenn teew wax peuple bi tamit li ngay wax na si jël xam-xam ñun peuple bi dëgg la Benno Macky Sall la ñu àndal ñu ko défendre mais tamit li ñuy wax peuple bi la waale parce que ñun li ñuy wax lépp peuple bee tax ñuy wax non doo yaa naan li ñuy wax bu baax. yow waaw li wax mooy. influence bi nga am moo tax. ay vies sax man yooyu du ma. non à peu près dañ. waaw danañ bi lay seetaan da nga xam. solo. waaw ñàkkul am na ñu leen di suivre. waaw parce que instant yii sama bi maa ngi si ay 3 millions vies yëpp moo ko doon dajale am na. YouTube yu am ay 2 millions yu am ay 3 millions. YouTube compte bi instant yii dem na 300 000 abonnés. Ah parce que bu say compte bari na mais benn bee fës rek. da nga am compte YouTube. am insta am na youtube am na insta youtube am na quatre am naa quatre compte tiktok waaye loolu loolu c'est louche de mais yëpp bu gilee la rek non mais yëpp bu gilee la rek non dañuy boole xam nga lu waral quatre compte yi xam nga lu ko waral ñoom dañ ñoom dañ lay sonal gisee ni sonal nga leen fii dañuy daw signal dugal sa compte kon yow ko ñi lay seetaan bokk na ci say adversaire non ñoom man rek lañu ñoom man rek la nooyee Thierno lay seetaan. non si li maam Thierno wax. man yow lan moo tax nga yaakaar ni nga bëggee Ousmane Sonko di la seetaan yow. yow parce que xam nga ñoom ñu may seetaan. waaw parce que ñoom dañuy bu ñu indee wàllu loo dem ba Kenya ba Japon barki Demba Ndiaye gis ñu ngi dem jëli vidéo yoo xam ne fële la euh, Argentine. fi nga xam ne Argentine bi Messi ñëw ñuy féete seen coupe moom lañ jël naan xool leen Afrique bi ñëpp génn nañ di màggal Ousmane Sonko xoolal genre ma ni léegi dañuy ñëwaat nit leen ñu leen du amul lii Argentine la waaw démentir lii amul Argentine la bàyyi leen askan bi ngay ni manipuler comme train bi nga dugal waaw xaaral rek xaaral ma daane rek maam Thierno <laughs> ah noonu man man noté benn noté yow man maam Thierno maam Thierno man man euh, affaire de dama naan seetaan rek waaw affaire de TikTok dama daan seetaan réseaux sociaux daanu ma ko sax utiliser parce que daa fu ma bokk boo gisee du ma wax lu ñaaw non boo daam fu ma bokk mooy sama famille moo tax may wax rus naa tey sama làmmiñ man ma génn si wax yoo xam ne sama yaay di koy dégg ñu ni doomu diw saaga na ku ma saaga na baal naa la ndax du ma tontu commentaire u saaga